mais en fait je pense que ñëpp xam nañ ne comme euh, Coupe Saint-Michel euh, institution la ça fait partie du calendrier euh, de la fédération sénégalaise de basketball euh, c'est la première finale euh, de chaque année qui coïncide tout le temps ak journée culturelle du du collège donc c'est une fête boo xamante ne nii ñoom duñ ko caaxaane parce que comme j'ai dit tantôt institution la depuis peut-être quatre semaines ñu ngi travailler ci préparatifs yi donc cette année la nouveauté dañ jël tournoi bi def ko en en continu xam nga souvent dañ daan commencé en janvier jeexal au mois de mai mais cette année dañ ko jël compressé que en trois semaines on naa joué les quarts de finale la semaine dernière demi-finale bi euh, barki démb euh, finale bi war a nekk euh, suba incha allah mhm. et li ci on aura une finale boo xamante ne finale populaire lay doon par exemple l'AS Ville de Dakar c'est la première fois mu qualifié en finale chez les pour jouer ko te donc. Euh, je pense que war a Douane. war a Douane bon c' vrai que ñoom yàgg nañ ko jouer mais gëj nañ jël tur euh, Saint-Michel donc je pense que dinañ am benn finale boo xamante ne sur le plan sportif. Mm. moom la ñëpp doon xaar. actuellement c'est les deux mais c'est Ville de Dakar et Luc fait partie des quatre meilleures équipes du championnat et l'AS Douane euh, je pense que aura une belle boo xamante ne nii. ñun ñëpp ñu ngi koy préparer parce que occasion la aussi pour l'AS Douanes bi nga xamante ne dafay dem à la Basket African League dans deux semaines mu nekk une phase de de préparation. au Rwanda mm-hmm. donc je pense que loolu noonu tey jii ñëpp a ngi koy xaar je pense que on aura une belle fête surtout du côté de la mobilisation euh, Saint-Michel ñun ñëpp am ak seen i majorette ñu nekk di def seen i préparation Ligue de Dakar aussi euh, on aura. kon dina am ambiance ça ça allah.